matinal veuillez partager le lien Ni ko jotagul ñu daal di war a mën a parvenir u li que euh, émission alors donc avant da ngay euh, tout d'abord ak euh, ki que moo di Mame Niang comme d'hab nee na pour à se livrer à la justice toutefois li euh, mu mais c'est comme toute euh, toute euh, toute ancienne autorité ou bien tout ancien journaliste. Mm. donc bu jotoon gérer les derniers publics. Hein, donc tey bu ñu la wooyee yoon bu la wooyee. tu es obligé nekkul hein, yow yaay choisir mambay lu ko waxee c'est là c'est c'est ça non la tu es obligé de répondre yoon bu la soxlaa tu es obligé de de répondre mm. de de dem wuy ji yoon pour xam donc yoon dafa soxla. Euh, donc euh, enquêter ba xam pour xam ndax yow luñ lay parce que Mbaye il gagnerait plus d'aller répondre parce que dans tuuram yàqu na ba pare. pareil. Mm. Tour Mbaye dafa yàqu au mm. Sénégal. forum pour rek nga dégg Mbaye Prodac Mbaye Prodac Mbaye Prodac maintenant pour mon mu mën a setal pour mon mu a ne serait-ce que jàppale boppam su ko il est obligé d'aller répondre mm. ci affaire Prodac bobo parce que non il n'a pas le choix amul choix xam am choix moy ne non man duñu gis dara ci man ba ba ba ba ba ba may wo hmm. <laughs> wala buñ ma woy duma ma parce que ça et ça et ça et ça. Hmm. gis nañu fi ay anciens ministres ne su yoon wooyee duma wuy ji Mansour Faye waxo naka en tant que ministre aujourd'hui ils sont plus ministres mon ci bopam Mansour Faye il s'est précipité pour aller à l'OFNAC récupérer formulaire mais quand il était ministre il il était tellement arrogant je m'excuse ce kàddu gi Mansour il était tellement arrogant en disant que si on a fi un journaliste soo répété ma porté porté la plainte il y a ñu wax ko fi fait ne so suñ ko waxee du wuy parce qu'il est ministre aujourd'hui ñu avons lolo ils sont obligés d'aller répondre. est ce que ministre de wax. non est ce que non dama ne euh, dama peut-être un ministre est justiciable comme tout le monde.

ils ont des preuves bon peut-être Daniel ne ñoom am nañu ay preuves ci l'affaire de Prodac je veux citer nommément maître euh, qui Clédor d'Orsen. c'est pas maître Clédor lii hmm. mais mais mais Clédor Sène donc Clédor Sène moom dafa publiquement ne gars ko l'affaire Prodac il est il est il est il est prêt à venir intervenir à à à venir ay éclaircissement hmm. on a vu un Birahim Sek qui a publié un livre sur Prodac. Mm. On a vu même des vidéos passées de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Amadouba, de dëggal ni rapport bi am à l'Assemblée nationale la ko mm. ba mu croyait que les membres ont publié un rapport bi alors que de mom. loolu prévu ay preuves yoo xamante voilà les ñuy soxla pour l'affaire de Prodac mais voilà. Hmm. chacun est obligé de répondre Ce n'est pas Mambay seulement hein. aujourd'hui les gens parlent de Mame Ce n'est pas Mame seulement qui a géré qui a eu à gérer ou bien qui est cité dans une affaire lousse. Ce n'est pas Mame seulement il y a d'autres ministres il y a les fonds Covid les fonds Covid il y a d'autres ministres encore épinglés il y a Petro Petrosen hmm. Petrotim hmm. Aliou le frère de Makissal. <laughs> Euh, voilà Aliou au bu Vous avez aussi l'affaire là je crois les contrats qui ont été signés n'importe comment et aussi les contrats les pétrole les jël offshore Kayar ay je crois j'ai entendu hier que les deux syndicats largement. il y a des gens qui doivent aller répondre à la justice il y a des gens qui doivent aller répondre à la justice sénégalaise. Oui, Guillaume. Oui, Guillaume il n'est pas seul, le seul à Bambay. Donc, l'eau la Alors, c'est pas parce que les gens aujourd'hui parlent de Bambay que Bambay, que c'est Mouer Il n'est pas le seul il y a beaucoup de gens qui ont été cités dans des affaires. Euh, euh, ces gens-là. Voilà. Nous, mais Mamba Niar Vigeni, exactement. Lors de l'Inahamdek Sénégalais, marqué c'est un curseur euh, par rapport euh, euh, à l'Inahamdek Modi Mamba Niar. Mais il y a un ministre il n'y a pas question de les laisser comme ça. Euh, de leen top mais Mame Mbaye Niang moo génn ah la vérité que ni yoon seetal ndox et tout. Sénégalais xaw nañu jaaxal c'est parce que Mame il n'a pas le choix dafa moom xam nga Bambey boo gisee mu génn di di def ses ses déclarations parce que dafa xam ni Serigne Fallou hmm. euh, il est le plus cité ah il est le plus cité parmi les ministres qui ont eu à gérer il est le plus cité te nommément sur affaire pour Prodac bi. mais enfin analysons aussi toutefois il a été utilisé justement euh, pour encore euh, la candidature d'Ousmane Sonko est-ce que es nekkul tey di côté exactement les pots cassés mais euh, <laughs> loolu yëpp yoon moo koy seetaan loolu yëpp. yoon moo koy seetaan oui c' est toutefois c' est toutefois aussi da nga yàgg jàpp ni euh, ba Adji bi doxul moo tax ñu indi. Mame Mbaye Niang pour éliminer la. carte mais yàgg naa wax loolu dama koy dëggal mais anam ñu ñuy attee Ousmane Sonko ci c'est c'est cette année là. Hmm. mais foofu ngay xam ni que quelque part dafa am lu ñu namm. c' est ça la réalité waxoon d'où ko fi du tay lay génn ci sama wax dama koy Ousmane Sonko da ngay xamni ki dañ candidat il a réussi té Mambay il est un acteur parmi ce jeu là dama koy on l'a vu ici Mambay il est un acteur parmi euh, comment adresse euh, candidature Ousmane Sonko bi baña a il a joué un rôle important tay bu demee wuy ji yoon ba yoon japp ni que mambay affaire product buñ koy tuumal mom moko def voilà il va payer deux pots cassés il va payer des pots cassés c'est ça la réalité mm. mais tamit yoon bu ko allé

yow nga ne ma cour suprême seetaan na Mame Mbaye Niang ñoom dañoo àtte Mame Mbaye sans déglu kenn même ñu déclaré woon sax ñoom dañoo am ay quelques preuves au lieu ñu woo leen bu fekkee jugement bu jaar yoon. Mm. gis nga euh, sëñ Fallou man jugement bu jaar yoon laay wax. gis nga affaire Mame Mbaye Prodac bi ak Sonko buñ ko jugé woon te mu jaar yoon dans ce cas kenn du fi ne di wax. ni que ça et di am bay dem ba ay ay am xel ñaar hmm. xam nga bu jaar yoon mooy ban ku taxaw brandir un livre mu ne leen dama bind un livre ci Prodac bi hmm. livre baa ngi nii hmm. xanaa kooku doy na comme bu fekkee dafa am procès ngeen woo ko déglu ko ku mel ni Clédor Sène ku taxaw ne leen man dama pare képp ku ma woo ci Prodac bi te il continue de le dire ah la Sène ba léegi mu koy wax kérok taxaw na dal kep ku bëgg japp sàcc na ma hmm. <laughs> voilà. opération japp sàcc. voilà opération jàpp même maintenant ñu mel noonu je crois j'ai cité deux mais ils sont pas les seuls ñu bëri ñu bëgg intervenir sur ce rapport de Prodac là dañu bëri mais pourtant dañu juger Mame Mbaye sans les appeler est-ce que loolu jugement bu jaar yoon c'est une interrogation est-ce que avant jugé juger dossier Bobu sans appeler les témoins là même Amadouba qui était le ministre des finances. Hmm. de de l'époque est-ce que le jugement bu jaar non moi ils ont utilisé ce dossier de Prodac pour gagner Ousmane Sokomo l'élection. élection ils ont réussi affaire faut que nous nous ko Nous avons ces acteurs là ñu pare pour intervenir man c'est clair donc mi ngi noonu exactement li nga xam rek modi di rebondissement yes yi nga xam ni tam bobu de miir am na ko rapport li nga xam rek modi product ki nga xam rek modi di Mame Mbaye Niang na ni pare na pour daal dem li nga xam rek modi livrer boppam li nga xam rek modi yon yoon ak wàllu yoon si toutefois yon nak daal di koy li nga xam rek modi justement ni mo daal di togn wala kon mo daal di laale si li nga xam ni tam ñeeloon 29 neuf milliards yi nga xam ni tam nekkoon na si boobu dina xam rek modi rapport euh, projet de li nga xam nekk encore une fois jàpp ne li nga la Cour des comptes seetal na à nag xamni na xam ko dal di won ak ki nga Ousmane Sonko euh, alors euh, donc ñu dal di ñëw peut-être bala ñu ñëwaat si li nga xam l'actualité justement virulente bi par rapport à